sama ki dafa bañ quoi sama ordinateur bi xawma ma charge la amul gisuma charge bi xawma la te aw ma portable mën a vidéo yi quoi yaatal leen yaatal leen ko mu yaatu mi tàmbale xale meere bu tuuti ma partage ko ci so sama vidéo bi tàkk na. yaa may dégg vidéo tàkk na. non non vidéo bi jógul ah. tàkk du fay quoi. Mm. ñëw focus maa ngi lay focus. hana mo ɗum gena kono sénégal mom sen dere woto se sénégal sen nasiha nene tawi luy tembe wa tawi tembe dañuy jukki dañuy jukki benn mbind wa ci mbindi ci mbind gaa yi quoi dañuy continue ci lance bu ñu nekkoon dañuy jukki benn mbind ci borom ci wa fule dabb boole They were little me. ñu xaar Yunus tuuti mu ñëw ñu tàmbali uh, ok ma jël la tapatalee na ah, sinon gars yi dañ koy signalé keroog gars yi dañ koy signalé ñëw mu ki dem quoi topat leen bu baax live bi ndax tiktok gën ko mën a yóbbu yaa may dégg si yow waaw maa ngi dégg mais vidéo bi ñëwagul xam naa mu ngi ci yoon bi taal naa ko de vidéo bi man maa ngi gis sama bopp instant bi waaw ñun gisaguñ ah, moom loolu ma jaaxal ñëw na dina ñëw peut être peut être dina ñëw peut dina ñëw xamoon maa ngi jaawale sax waa waa kii la moo leen dal tey tey waa Angleterre la moo leen dal ba di ñun bon ñëwagul ah mais Mongol I don't know waaleykum salaam ñu ngi ziar gars yi ñëw baron le bron le bron sow ñu lay ziar salaam. ñëw na. non xam nga xam gars yi ñu gis mais man gisuma ko ah. man day def ne maa ngi gis sama bopp quoi su ma taalee vidéo bi. waaw ñu démarré ko ci kanam bu la neexee après ma. ak xaaral ma dégg ko fee nii après. waaw toppatoo leen bu baax ah. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa asxaabihi wa man wala comme ni nga xam ne ñu ngi woon ci benn lancé amoon na ay mbind yu fi doon leeral fan yi mbind ci kenn ci ci gars yoo xam ne bind na fi daal ay mbir yoo xam ne ay mbir yu yéeme mbind yooyu ñu bëri ci lañuy ñuy sukkandiku di wax di wax seeni bokkaale waaw lu ci mel ni ne moom ruu jaam mu ngi ci loxoom lu ci mel ni wax bu wax moom du faatu lu ci mel ni wax bu wax di sax moom di sukuraat. may gis no no de. dina ñëw incha allah man instant yii parce que. dina ñëw dina ñëw xam naa dafa kii. lu ci mel ni wax bu wax ni kaaba yi toxal nañ ko indi ko ci continuer ci ay mbindam lu bind rek la ñuy wax ah sosaluñ ko daf ñu ko dara. nit nag lépp lu bind nit am nañ droit débattre ci. ndax nit du bind benn mbind sama mbind bu ko kenn bu ci kenn wax déedéet ku bind bàyyi sa mbind dañ ciy wax imaam Malik ñoom ñëpp ci moom lañu tënk waaye ci boppam ay mbindam ay nit dañuy ñëw di ci ba ci wax wax ci mbind waaw comme loolu moom wax dëgg fa yàlla di wax ni damay bind waaye sama sëriñ bind na waaye mbindam kenn du ci wax loolu moom mënul nekk surtout mbind yooyu bu fekkee ni ñu bëri ñu yàllaal sëriñ boobu ci lañ ko teg ci mbind yooyu lañ ko teg comme mbind woo day aajo woo ñu gën koo leeral waaw day aajo woo ñu gën koo tasaare waaw ñu gën a leeral la ci nekk wane wuute bu wuute alxuraan sunna te wane ni sëriñ boobu daa juum waaw wane ni sëriñ boobu daa juum comme ñëpp nu ñuy juumee waaw su kanamee tuuti naa dugal ismaila kanam tuuti ñoo indi contribution am mhm.

diw ok dinañ ci ñëw parce que même ci même téere bi ci même téere bi ci même téere bi wax na ci wax na ci loolu ci même téere bi ah ci même téere bi junj na ko junj na ko ci junj na ko junj na fa yooyu dinañ ci dinañ ci ñëw. acca modérateur yi kam moo pare ma def leen modérateur ku pare ku pare. waaw <coughs> am na ay modérateur ba pare modérateur yaa ngi fi. Ah, am na modérateur ba pare léegi nag som problème mooy dama amul fu ma teg fu ma teg euh, waxu kii bi tey Gana Messere lañ leen di indil nu mu firee. Moussa dafa tonto Ismaël modérateur. tonto Ismaël ah. Ismaël après dinaa la jël bi iznillah après dinaa la jël bi iznillah parce que gars yi ñu wax ne ñun leen di sot quoi ci kaw après dinaa la jël dafay benn kii nga dugg. maa ngi ziar jaxite Gibson maa ngi lay ziar euh, tey euh, sa beneen téléphone muy tàkk sa beneen téléphone a tàkk am na WhatsApp boobu euh, maa ngi ziar yëpp Xaadim maa ngi lay ziar maa ngi ziar Fatima Zahra ñu lay ziar tey tey ci même sëriñ bi nga xam ne ci moom lañ nekkoon ci ay mbindam dafa am wax bu mu wax xam naa faaw Yunus ñëw mu taal téléphone am aw ma beneen téléphone te ci ordinateur bi xamal ma ko tere tàkk ma bi sëriñ bi dafa waxaat ci même mbind bi xaatimatu munaajaat yi mu ne yàlla buy def dara da koy tàggu waaw mu ne yàlla def dara lu dul da koo tàggu moom nee lépp lu yàlla def rek dafay laaj ndigalam waaw sëriñ bee ko wax tey ci baytu boobu la ñëw tey ñu ma leen ko waxee ñun à fois dañuy xool seen firikat yi nañ ko firee bu ñëwee ñu waxee ko ñu waxee ko noonu waaw parce que bëri na looy wax rek ñu ne la yaa ko sosal ak waxeewul foofu ak nangam nangam léegi dañuy dem jëli seen ñoom seen kilifa yi nu ñu firee ñoom seen wax yi nu ñuy firee ñu ñëw firee ko noonu comme tey boobu mooy jukki bu ñuy jukki sëriñ moo xam nee yàlla lu muy def da koy tàggu da tàggu nee yàlla def dara lu dul laajul ndigalam comme yàlla bu muy bind maam Aadama dafa da koo tàggu yàlla bu muy eh, bind maam Xawa da koo tàggu yàlla bu muy yónni yonente bi da koo tàggu yàlla bu muy bind asamaan suuf da koo tàggu waaw yàlla téere da koo da koo tàggu nee daal yàlla def dara lu dul ci ndigalam lu dul yàlla da ko dafa laaj ndigalam ba noppi doo ko def tey tey tey bii la bi maye moom tey waaw tey foofu la fëlee sëriñ bee ko wax nag de waaw wax jooju nag xam ngeen wóorul waaw ngeen wax jooju moom wóorul benn yoon xaajul bay wër waaw ko wax ji dañ koy dajji waaw dañ koy dajji yaxeet ko teg ko fële dajji ko sànni ko fële loolu moom amu ci amuñu ci waaw Yunus dafa mel ni ñëw na. ñëw na. waaw Yunus ñëw na waaw doog a macha allah yéen kay te da ngaa dóor leer quoi darabta nuura. <laughs> non dafa darabta nuura te da nga leer. waaw Yunus comme comme ni ko waxee sànq. ma ne tey dañuy ñëw ci ba tey ñu ngi ci xaatimatu munaajaat yi. <laughs> ci mbind sëriñ ba ca Bawol. <laughs> waaw tey nag moom dañuy jukki benn baytu boo xam ne moom. te moom saa yu wax rek day gën a sori moom saa yu waxee rek bayt bu ciy tegu booy gën a booy gën a doy waar saa yu waxee benn bayt ba ciy tegu moo ba ciy tegu moom mooy ba ciy tegu moom mooy gën a doy waar waaw ginnaaw waxee ni moom bakkan yëpp bu ñu faatoo moom day des bakkanam bakkanam bi du faatu loolu leer na daa ji nañ ko leer na mu dellu waxaat ni kaaba gi toxal nañ ko nañ ko màkk indi nañ ko bërëbam loolu dajji nañ ko leer na mu waxaat mu ne zimaam war a lallahi fi yadi ruubu jaam ñëpp mu ngi sama loxo ma téye dajji nañ ko leer na léegi nag ci loolu la continuer di woy tey nag moom moom nee na yàlla moom buy def dara faa mu tàggu ko moom ba pare tey boobu la mel tey comme atana euh, sama kii di fee dama lay bàyyi bu amee beneen téléphone nga teg ko ci nga teg ko ci ñu def bi mooy bu gàtt bi ah pas bu gudd bi mooy ñaari gàtt yi ok bismillah salaamaaleykum wa barakaatu mbokki jullit yi ñu leen di ya, ya. ziar di leen ñaanal jàmm di ñaanal Cheikh Alpha jàmm comme lu wax rek dellu si waat nañ ci ci li nga xam ne si tey moo ci mbindu sëriñ bi borom ñi wax ne mooy borom bawal waaw ci yi nga xam ne si tey moom lañ jàll di ay bind yu mu bind yoo xam ne si ni tey dëppoowut ak alxuraan ak sunna cheikh bi di ko leeral incha allah dañ leen indil si si ñi nga xam ne si ñooy seen boroom xam-xam ñu wax ci ba pare après nag incha allah bismillahi taala ku mën a dugg layal ko après leen oui ligne bi moom c'est ouvert quoi pour pour ñëpp boo duggee daal da nga indi loo xam ne si ni daal mooy say dalil ci alxuraan ak ci kon nag cheikh bi bismillah génne woon naa xool foofu rek waaw léegi comme Younus da fay si micro waaw comme dañuy xaar Younus mu ñëw teg ko hmm? dañuy bàyyi dañuy xaar ñëw teg ko après ñu démarré gars yi na gën a tas ah partage leen ko fu ne na tas te ngeen tapote mu gën a démarré ah. affaire bi gën a affaire bi gën wër. nga bëgg xaar wala ñu dem. waalaikumsalam ya karena yaakaar naa mën nga mën nga leen may ñu dem bisimilah. Hmm, ko min mulki mulka sabaa ah. fa mulkuhu fi samani laaj bi yàlla ne ko ci digg bi jëlal lii ma jël lii dama laal ci sa te tëggu ma sama jël ngi يقول لي ولا يقول مني إلا لمن شئت باسم مني non jegeel ko jege dafa xaw a faible ah. mën nga tuuti ci kii bi dafa xaw a faible quoi son xaw a faible ah. Hmm. xaar dañu commencé waat ko quoi. yàlla sumbalu ko. yaa ngi dégg wa min maalikil mulki mun xawaat fa mun ko fi sarmadi laa yabini yàlla di ko tëpp ci digg jëlal lii ma jël lii du ma laal ci sa yëf te tagguuma la sama yëf loola neex jëlal ah yaquudu lii waxi sëñ Tuubaa rek laa lay wax yaquudu lii wala yaquudu min nii illaa liman shiitu bi isnin min nii yaquudu lii wala yaquudu min nii illaa liman shiitu bi isnin min nii yàlla day jël di ma jox te balaa jëlee ci man dara tàgguma Cheikh Ibrahima Diop ne wa min maalikil mulki mulkul hawaa ci nguurug yàlla gi la làmboo nguur fa mulkuhu bi sarmadin laa yabiidu nguurug sëñ Tuubaa di jeex tëpp ci digg bi jëlal lii ma jël lii te lu la neex jël ci sama lool te man bala maa jël ci sa lan tax kon allahumma lakahu haqqan xazaa'inuhu ad-dunyawiyaati atal uxrawiyaat yàlla ne ko mboolem maa nga si adduna am téyel yooyu yoomal xiyaam jëlal kon man laka ni dunya asamadu maa moom tey moom ëllëg comme day ngeen lu gaana mesara wax ah gaana mesara baytu seen ngi ci xaatimatu munaajaat yi li ma ci naa ko génne kay. li ci xaatimatul munaajaat yi ñaari nu sax ñoom ñoom dañoo am ñaari copie xaatimatul munaajaat yi. ñaari mm-hmm. copie nag lañ ci am ñoom. am na copie boo xam ne ñoom bu ñu yor boo xam ni waxu Gana Messere bi mu ngi ci. Mm-hmm. am beneen copie boo xam ne nag nekku ci mais ñaari copie yëpp ñoom waa maktabatul ulumu diiniya ñi nga xam ne ñooy saytu mbindu sëriñ bi ñoom ñoo ko reconnaître de sëriñ bee ko bind ñoom ñoo ko validé de sëriñ ko bind. Mm-hmm. comme dégg ngeen Gana Messere lu wax indi na bayir bi yaquulu li wala yaquulu minni illa bi man chitu bi isni minni nee na sëriñ bi nee yàlla moo ne moom lu ko firee yàlla moo ne teppet boo xaaj nguuram jox ma mu ne te yàlla du def dara lu dul illa man chitu bi isni minni lu dul loo xam ne man daf ma soob man sëriñ bi te dégg wax ju rëy ji yàlla mooma lépp lu muy def du def dara lu da ko da koo soob moom mu tàgg ko moom moom léegi yàlla sëriñ bi lay tàggoo yàlla balaa muy def dara moom sëriñ bi nga xam ne 1927 la judd 1953 1853 la judd yàlla moom lépp lu muy def moom da koy tàggu moom comme lii dañ koy tontu ci argument dañ ko tontu ci argument tontu ko ci texte tontu ko ci xel aussi dañ koy tontu ci xel tontu ko aussi ci texte waaw comme dana si ñëw léegi keneen ci am na keneen si ñoom ko firee même firi te ci seen waxkat yi mu gën a leer quoi incha allah ngeen naan dañ leen a sosal liman situ bi izni min ni yàlla am naag man ba lu muy defati da cay laaj sama ndigal man wana ko wana ko wana ko da ngay woon gars yi quoi gars yi am preuve xam ne ñoom la quoi am na seen mbokk yi aja liman situ bi izni yàlla am naag man ba lu muy defati it da man yàlla ànd naag man ba lu muy defati da ciy laaj sama ndigal man xaadimu rasul da ngeen wax ci comme indi na leen ñaar ñoo xamante ni baytu bi ci seen yoon bi lañ bokk benn firin lañu firee baytu bi wuute wuñ ci te ñaar ñi ñëpp léeg-léeg bu ñu amee xew-xew am ay mbir ñooñu la ñuy invité Gana Messere bu ñu amee ay xew-xew seen télé seen télé yi ak rajo yi Gana Messere la ñuy yóbbu ba seen championnat silic bi passé ba championnat silic weeru koor bi nga xam quartier général nga xam dañuy invité kii mu ñëw tagg ay sëriñam xas ñu leen invité que ne tagg ay sëriñam xas ñu leen Gana Messere la ñuy yóbbu woon parce que moom la ci gën a yaakaar ci la ñëwee wax ay waxam ne sëriñ si dañoo lekk yàpp xaj duró ma ca dar wax ay waxam kee tamit kenn seen firikat la koo xam ni sen événement yi bu jotee moom la ñuy woo mu toog firi yaqulu wala yaqulu minni illa bi ma chiitu bi izni minni waaw sëriñ bi nee na yàlla la muy def di ko wommat di ko wommat du ko def lu dul man sama ndigal man sëriñ bi waaw sëriñ Tuubaa ko wax mu ci xaatimatu mu naa jaati sosobu ko moom moo ko wax Yunus indi waatal ñoom ñaar encore ñëwaat bu mu leer rek dañ ko tegaat trois fois bu nekk bu leeree du daj ñëwaat. yàlla soxla ko moom it maa ngi leen di mun ko xabaar te ma jël lii du ma laal ci sa yëf ma la sama yëf loolu neex jëlal. <laughs> ah yàquwul lii waxi lii wala yàquwul di mel nii. il a yàquwul si yaqudu lii wala yaqudu minni illa liman cheikh bi dir minni day jël di jox dama laa jëlee ci man dara tàgg cheikh ibra jóg ne wamin maliki mulki mun ko tawa ci nguurug yàlla fa mun ko hubi tepp ci bi jëlal ma jël neex jël ci sama lool te man bala maa jël ci sa lan kon allahumma lakahu haqqal khazainuhu atul yawiyat atal ukhrawiyat yàlla ne ko moo leen am amal jëlal kon man laka fi ya waxul asalon ma mom tay mom ëllëg subhanallah ah nee serigne be mom tay mom moom legi mom mom tay tey yalla yalla ne ko waaw mom moom tey moom ëllëg mom ëllëg waye serigne mom neena yalla mo moo xaaj mom ne ko tipit ci digg bi ne ko am jëlal achef indi waata ñu indi waata même gaana sere yalla soppalu ko ko min maaliki mulki mulka xaba fa mulkuhu fi samani bi yalla ne ko tipp ci digg bi jëlal lii ma jël du ma laal ci sa yëf te tàgguwuma la sama yëf lu la neex jël ah lii wala yàqudu min illaa liman shiitu bis min nii yàqudu lii wala yàqudu min nii illaa liman ma jox te ci man dara tàgguma Cheikh Ibrahima Diop ne wa min maalikil mulki mun ko xawa ci nguurug ba nguur fa mun ko hubi ma nguur sëñ Tuubaa di njëkk tëpp ci digg jëlal li ma jël li ta lu la neex jël ci sama law ta man bala mën a jël ci sa lan tàgg. yàlla nekk balaa maa ngi leen di ak al uxrawiyat yàlla ne ko mboolem maa nga si adduna am téye yooyu nga amal xiyaam jëlal kon man la ni dunya waxul asaloon maa moom tey moom ëllëg. kon boobu leer na ah boobu leer na. di benen bi ah. indi benen bi tranquille Iman situ bi ismi minni yàlla ànd naag man ba lu muy defati man xaalis rasul waaw nee man ba lu muy defati da ngay man xaalis rasul léegi ndax wax yu rëy ay dañ koy gis ñu ne yow naka la nit eh, di waxu ci biir ci biir Sénégal ay nit sukkandiku ci wax yi rëy yi jàpp di sëriñ bi moom mooy yàlla jàpp di sëriñ bi moo sàkku asamaan suuf ba ñenn ñi jàpp ni sëriñ bi sax moo sàkk yàlla bal ñu teg ko ci genre wax yi ñu ne wax yi képp ku koy lokk ci di ci wax yow amoo xikma yow da ngay yëf fit wax loolu boo tax ñay wax lii ñoom ñoo amul xikma wallaahi da nga war a jàng la mooy xikma ñaareel bi mooy naka la nit di waxee wax yu réyeen yi ma ne bàyyi leen Gana lii Serigne bee ko wax Serigne bee ko wax ne Gana daa jottali ñoom ñoom ñoo accepté di Serigne bee ko wax ñoom ñoo validé di Serigne bee ko wax al maktabatul ulum diiniya ñi nga xam ne ñooy saytu mbiru Serigne bi la ca wër ak la ca wërul ñoo validé copie bii Gana di wax copie xaatimatu munaajaati boobu ñoom ñoo ko validé ñoom ñoo ko validé comme bu leen wax Garga day fen de dafa nettali parce que dégg ngeen wax ji Garga lu muy nettalee ay ruubu jaam mi ngi sama loxo waaw lu muy nettalee ruubu jaam mi ngi sama loxo man ay temps dama jàppoon ni Garga day day day meew quoi dama jàppoon lu ci ëpp dama jàpp lu ci ay meew day meew nii rek mais ba demee ba gëstu laa xam ni la mu wax lu ci ëpp la mu wax léeg-léeg nag bu poobar léeg-léeg bu bineegar poobar tuuti mais des fois dama dem ba xam ni lu ëpp ci la muy wax lu ëpp ci Gana Messere la muy wax sëriñ beebu bind waaw surtout ba ma demee gëstu xaati matu mu naajaat yi gëstuwaat yeneen téere li maa ba Bachir yi gëstuwaat wa kaana xaqan ak yeneen i téere da xam ni da ne Gana lu bari la muy wax gars naan day fen day fen day fen sëriñ bee wax de sëriñ bee wax bokk na ci tey bayti bii nga xam ne tey moom la indi bokk na ci bayti bii nga xam ne tey moom la wax mu nekk lu leer ngeen dégg ko ci seeni nopp waaw ba si njëkk mooy bu ñuy dajji waxu sëriñ bi dañ naan sëriñ bi lu wax warul sëriñ bañ na ko ba téere bi xaatimatu munaajaati la ko tuddee déewante bu mujj ak borom bi hmm. waaw yow euh, cheikh bi sànq ba léegi yaa ngi may répété def ma modérateur mais maa ngi jégalu ku ma xamul mënu la def modérateur quoi moo tax mën nañu a jël photo Oumar Sall wala jël photo kenn def ko ba def la modérateur après nga nga tëbal sama gars yi waaw <laughs> ragal quoi du question wóoruma la mais yàlla dafa ne xuzu xisrakum ko dafa leen am nañ ay ba pare sax am na ay modérateur kay am nañ modérateur amul benn ci borom xam-xam ahlu sunna bu gis zaaru wax yi boo sori ñu nopp ci moo tax man damay wax ni waa xikma wala ñuy ñuy woote waa xikma wala ñuy bubboo xikma des fois dañuy am ak yow problème yow dañuy am problème di bubboo xikma soo waxee ñu la xikma naka la ay nit toogee di wax wax ju rëy ji ci biir nit ne yàlla lépp lu muy def daf may tàggu ne sëriñ bi moo ne yàlla lu muy def daf may tàggu sëriñ bi moo ne yàlla xaajam nguuram jox ma yow soo tontu loolu ñu ne non yow amoo xikma quoi te pourtant ñoo ngi wax amoo xikma ñoo ñuy wax ci ay yeneen mbir ñuy wax ci ay yoo xam ne soxlawuñ ko léegi ñu la coupe d' afrique yeneen njëriñ lañ ci war a jëlee tu vois yéen njëriñ lañ ci war a jëlee coupe d'Afrique yéen njëriñ ci war a jëlee yaa ngi bàyyi xam ne nee na boobu yàlla lu lañ ciy jëlee quoi yow yaa am xikma mais kay wax ci réalité Sénégal donc kooku amul xikma <laughs> comme lépp bëgg wax mooy wax jii wax jii nii wax ju yàqu la wax wax bu sëriñ bi wax sëriñ bee ko wax nag muy ci xaatimatu mën a jaati waxam la gànnaaw mesara dafa répété dafa jottali mais lii waxu sëriñ bi ci boppam la yaqulu wala yaqulu minni illa wala yaqulu illa man shi'tu bi idnin minni mu ne yàlla lépp lu muy wombat ak di ko def moom yàlla faaw man sëriñ bu mu tàggu ma mënoon naa ñëw rek wax leen ko mais su ma leen ko waxee nii day naan non ba dul alpha boo ko wax alpha boo ko sos jurus baa ma nga indiwaat baa ma nga indiwaat mooy tuumaal suñu sëriñ quoi mooy tuumaal suñu sëriñ baa ma nga indiwaat ñoom dañuy wax ñoom saaga seen sëriñ si mais ñun moom wuñ leen dañ leen di leeralal rek seeni borom ah, xam-xam kay lañu ñu war a wax ne ñoom ñooy ñoom ñooy ñëw di leeral seen waxu sëriñ parce que dañ koy bàkkoo mm-hmm. ok ñu ñëwaat si yàlla soppalu ko wa min maalikil mulki mulka xawa fa mun ko fi sama lillahi bi yàlla di ko tepp ci digg bi jëlal lii ma jël lii duma laal ci sa yëf te tàgguma la sama yëf lu la neex jëlal yakuduli ok c'est tout le monde yakuduli voilà yakudi minni il a le même chiffre que minni yakuduli voilà yakudi minni il a le même chiffre que minni ya la day jël sama la jël dima dara tagu cheikh ibrahim no wamin malik mulki mu tawa ci muruk yalla gëna lam mo sama de lay mi nguru ci jubal jatt tepp ci digi bi jël sama lolu ta man bala ma kon allahu man lakahu xatal xasaa'inuhu ad-dunyawiyyaat yàlla ne ko mboolem maa nga si àdduna moom tey moom ëllëg. koy dégg si seen i wax dañ koy répété. bu ñu demee dañ naan waaw ñun moom lañ yaakaar àdduna ak alaaxira kon nag dafay dellu ci ay bindam. Mhm. moo ko bind de moom moo ko bind de. comme bayti moom leer bayti lu wax mooy yàlla dafa xaaj nguuram ci digg bi jox ko beneen mooy yàlla lu muy def moom da koy tàggu waaw yàlla lépp lu muy def rek day tàggu sëriñ bi ñaareel mooy yàlla nee na ko moomal naa la aduna ak alaxira yaa moom aduna yaa moom alaxira ci beneen bi Yunus vidéo bu gudd bi ah, boo demee sept minutes cinquante et un sept minutes cinquante et un ah? waaw foofu lay waxee ba ba day indi bayti barkeel googu mu barkeel ba nag marid nee na seytaane mu ñu rëbb ma ci leer yàlla jublu man xaari ma rasul wala yaquudu minni yàlla day ñoddee beneen ñëw ci man waaye du ñoddee ci man dax ke fi man jëme bi ismi minni yàlla ànd naag man ba lu muy defati da cay laaj sama ndigal man xaari ma rasul ay nda ilahi tartafi sama daraja ba sunu borom tartafi yàlla ànd naa man loolu muy def daf may tàggu baytu baa noonu kooku jàng na ko mu gën a leer. mu gën a leer. Hmm. comme baytu seen bi dañ leen indil seen jàngkat baytu mun naa ko ñëw tari ko de mais indil leen seen ñaar jàngkat yoo xam ne nuñ ko firee benn la te ñaar ñëpp yoon bi dañ leen a reconnaître ci bu ñu amee ay xew-xew wala bu ñuy dem ci télé yi dañ leen di yóbbu ñuy wax comme leer na voilà comme wax bi sëriñ bi rawaan bi da ko da koo ndax man gëm naa dañ ko dee ak ma ni sëriñ bi mooy xëy rek di wax lii gëm naa rawaan dañ ko dee mais la ko dee lan la rawaan moo ko dee parce que wax ji bon da ngay rafet ci moom njort ni wax ji bon du xëy rek di ko di ko créer di ko wax quoi looy gëm ni rawaan moo ko dee parce que li ma leen waxoon di leen yàgg wax seen jamono ñoom dañoo amoon jàng sharia ak jàng xam-xam bu ñuul jamono jooju ñaar la boo jàngee sharia ba pare dañ la naan demal jàngi xam-xam bu ñuul hmm. xam-xam bu ñuul mooy xam-xamu lasraar mooy xam-xamu cinde mooy tey lu ñuy wax ay xam-xamu njibar ak yooyu borom ñoom gisoo ñoom suuf yow bu ñu lay tëkku bu ñu lay tëkku mooy naa la yàq ba ci seen sëriñ gën a mat yow suba daa kurus waaw yow yaa ngi yow fàtte woon yow jibarkat nga yaa ngi ñëpp ñoo ko jàng ñu ko daan bàkkoo naan bàkkoo jàng xam-xamu lasraar boo tax ku jàng laxtari jàng isiya jàng risaala euh, mokkal alquran d'abord da lay wax damal jàngi xam-xam bu ñuul xam-xam bu ñuul nag moom mooy xam-xam bu jinne moom mooy xam-xam bu jibar léegi jinne boo jaxasoon ñoom ba jaxasoon ñoom dañuy déewante ak yow te xam nga ni jinne moom bu demee balay jàng lasraar jinne boobu du jinne bu baax léegi nag da ngay tëdd guddi rek jinne bi ñëw la dee nag naan la yow yaay yaay yow est-ce que sàkkoo asamaan suuf sax naan la yow yaay punkal naa la yow te xoolal yow yaa yow yonente bi sax yaa ko mën naan la yow yow doo moromu malaaka yow jibri sax yow doo moromu naan la xoolal yow aduna bi yàlla sax ci boppam yàlla ci boppam yow hmm? est-ce que sax doo yàlla misaal mu ne waaw mën na koo nekk yàlla sax waaye yàlla nguuram ci boppam xaaj na ko jox na ko yaa may dégg dafa ma doon woo bi. maa lay dégg dafay répété quoi ma génn. maa mu la yow yow yow yow yàlla sax léegi yow ëpp la trop dara waaw yow yaay yàlla léegi bu dem ba saa ne non non yow yàlla sax léegi buy def dara yow da lay tàggu yow yow léegi yaa sut yàlla parce que yàlla moom koo xam ne yàlla buy def dara da lay tàggu moom kooku mu sut yàlla. comme sëriñ bi ci bindam fii nee na moo sut yàlla pour amul werante même bu ko lisaanu maqaalam waxul lisaanu xaalam wax na ko waaw même bu ko bu fekkee lisaanu maqaalam mooy làmmiñ bi waxu ko mais lisaanu xaalam loolu lay wax fekkee da ne yàlla lépp lu bi def da lay tàgg comme yaa gën a foor yàlla moo tax nag ñenn ñi tëb naa la sëriñ bee sàkk yàlla parce que lii la ñu dégg lii lii lañu lii lañu dégg moo tax ka bëgg a corriger ñi wala ka bëgg teg booy ci yoon nekkul naa ko noo li nga waxal sëriñ déedéet ministère bi ci boppam ngay ngay ngay ngay régler quoi moom ngay teg ci yoon moom ngay teg ci raay ministère bi ci boppam ngay dajji mais doo ñëw naan doo ñëw naan non euh, benn boy bu ñëw jël benn baytu sëriñ bi ne sëriñ bi euh, nee na moo sut yàlla wala def tolloo yàlla nga bëgg a ñëw di raddu booy boobu te nga bàyyi lu sëriñ bi li nga xam ne moom moo ko bind mais da ngay contradiction commencé seen jël benn bopp parce que booy boo ñëwee tey di ko radd tey boo dinaa la non man waroo ko radd parce que man lii ma wax nii ci seen bi la ak fekk dafa mel ni ngay ñëw di radd Gana Messere su raddee ma lii nga may raddee man li ci bi laa ko gisee sëriñ bi moom moo ko bind ne la bi moo ko bind léegi loo ci mën comme dangay ngay dem ci source ba da ngay dem ca bopp ba waaw ba dama ne gars yi wax leen ma ban borom xam-xam ci ahlu sunna wal jamaa boo xam ne waxi rëy yu mel nii ñu ngi koy wax ñu naan la non tontu ko jotagul wax leen ma rek fekkee am na man boobu lay maa ngi defee gars yi nga xam ne ñoom ñooy wax ay waxu kii ak ma leen indi leen ma rek fekkee am na rek ngeen am na ngeen lii la comme wax ji ko koy wax tam ñaareel faamu la ku wax wax ji yow doo mënoo nekk mënoo nekk sunnit fii dafa war a leer mënoo bokk ahlu sunna waaw ka wax ni kii ci ahlu sunna la bokk kuy bind bind yu mel nii faaw nga leeral lañu nañu kañ la nekk ahlu sunna avant bind yi wala après bind yi loolu tam dafa war leer nit ñi xam ko bu ñu kii ku bind yu mel ni ñu nee rek ñu boyal la newoon kooku problème am kooku dañu indi problème bu mag rafa bi leeral nag waa kii bu fekkee da nga la newoon da war kañ la nekk ci sunna ginnaaw wax yi wala après wax yi wala avant wax yi la foo mu comme Euh, xaaral ma xool Yunus comme sëriñ bi wax bu wax ni yàlla dafa xaaj nguuram jox ko amul amul rawaan bi moo ko njuy rawaan bi da koo nax rawaan bi ko dee da koo nax da ko doon tong tong waaw mu xëy rek bind waaye nag instant bi nag lay comprendre ne rawaan bi da ko doon nax waaw nag mbiram ci yàlla lay dellu mbiram moom ci yàlla lay dellu ndax yàlla nax bi mu ko nax yàlla da ko ci baal wala kooku moom day dellu ci yàlla borom bi subhaanahu wa waaye xam leen ni wax yi du wax yu tegu fenn yàlla soxlawul laaj ndigalu kenn laa yusalu amma yafalu wa hum yusaluun yàlla kenn ko laaj li ngay def la moo tax nga koy def yàlla nee na yéen laay laajtee yéen pourquoi ngeen di def nii mais du yéen yéen a may conditionné ñaareelu bi moom nee na yàlla lépp lu muy def da koy tàggu moom sëriñ bi comme ni nga ko waxee moom sëriñ bi nañ xool ci xel ci logique sëriñ bi kañ la gane si àdduna kañ la faatu ndax yàlla bu muy bind iblis da koo da da ko da da koo da koo tàggu bu dafa tàggu sëriñ bi yàlla bu muy yónni yonente bi salaa sallam dafa tàggu sëriñ bi yàlla bu muy yónni mboolem yonente yi tàmbalee nuux ba ci yonente bi dafa tàggu sëriñ bi yàlla bu muy bind ay woy juróom moom sëriñ bi da koo tàggu moom yalla mom dakoy tak tàgg ba pare yalla mo bind ay wajuro foofu bo mom fek fekk amagul moom ko xam ngeen xel yi wax yi xel bu sel sax dako nangul xel bu sel dako dakoy rejeter ko rejeté ñu bëgg wax foofu rek mooy moom mooy yàlla maanaam ñoom suufi loolu quoi suufi ñoom day am lo xamne ne dañ koy wax ci khawas ak xaasatul xaasa ñoom dañoo am lo wax yo xamne nañu dako wax ci penc bi dako wax ci biir nit ñi mais dang koy da nga koy wax ci ñi nga xam ne nee nañ ñoom ñoo ñoom ñoo àgg waaw ñoom à chaque fois ñoom loolu la ñuy wax waaw moo tax koo fi dégg mu naan la non ñii di wax nii ñii la waaye sëriñ bi wootewul loolu tey leen de bu leen wax loolu de waaw bu leen mos a wax naa non non non sëriñ bi moom wootewul lii lii taalibe yi rek ñoo koy wax déedéet déedéet bu leen teel a wax loolu da ngeen di juum waaw bëri na lu taalibe yi di wax boo demee ci bindu sëriñ bi su ko bindul mu leer juñu na ko lu ci ëpp yalla xàññi ngorom jox na loolu da wax mu leer nañ ni yalla buy def dara daf may tagu lolou dako wax mu leer nañ ni jang nañ baytu la wala illa bi shi'tu bi izni minni ta waaw bi muy def man yalla faa mu somm man faa mu somm lépp lu mi def ci nit lu mi def ci yurus diko def ci man diko def ci kenen diko def ci ñi di setan dina sëriñ bi ne lolou il faut mu sokko ko il faut yalla tagu ko mu doko def ñaari moy mu am nag sëriñ beko bind rawaan bee nax ko njuuj ko wala dañ koo sosal sëriñ bi ñaari moom la nekk bu fekkee sëriñ bee ko bind rawaani dee ko ah loolu moo xam nañu moom nax nañ ko te rawaani moom ay seyaatin lañ njuuj nañ ko wax loo nañ ko loo xam ne kéefër la bu fekkee nag dañ ko koo sosal nag waa yoon bi war nañ taxaw nag kenn au moins sax kenn ci ñoom taxaw ne lii dañ koo sosal sëriñ bi wala kenn ci seeti ne lii dañ koo sosal sama maam mu leer nañ ñu xam ko bu loolu amul lu ñuy jàpp mooy sëriñ bee ko wax waaw ndax nag ku nekk say mbind nag say doom ñoo ko gën a xam say njaboot ñoo ko a xam waaw waaw mbind ku ne ku nekk bu bindee bàyyi fi ay taalibeem ak i njabootam ñu koy gën a xam te moom bokkoon na ci ay njabootam bokkoon nañ ci ay taalibeem ay doomam bokkoon nañ ci ay taalibeem waaye taalibe bi ak ñee waxal yoon bi ñëpp ko nangu sëñ Samba sax lu mel ni Moustapha wax sëñ Samba moom dañuy ñëw ci moom spécial parce que kooku moom faa ñu ñëw ci moom spécial kooku lu mu yàq ci Sénégal goro sax yàq ci tool ci dévier pas-pasu doomu aadama yi ak yàq pas-pasu doomu aadama yi loolu dinañ ci ñëw mu gën a leer loolu dinañ ci ñëw mu gën a leer nañ beneen yoon ko wax ji nii wax ju yàqu la texte da koy rejeté texte alquran li nga xamante ne moom mooy xel da koy rejeté comme bu ñu bëggee defar nit ñi bu ñu bëggee ne nit ñi ñu bàyyi waxu bokkaale yi doo dem ca ko koy nettali da dem ca source ba noo toog ko koy nettali di ko saaga yow fenkat nga fen nga ko fekk yow fekk la muy wax daal du ko bind yaa ngi tooj yaa ngi contradiction moom dafa jël nettali toxal bu fekkee la bu nettali nag nekkul ci bind yi su nag mën nga ne ee eh, yow fenkat nga mën nga ne ee eh, gànn bàyyil fen mën nga ne ee eh, kee bàyyil fen waaye gànn la mu nekk lu ngi ci bindee nga tëb di dal gànn ma dama gis loolu hypocrisie la bu fekkee ka koy wax xam ko ka wax xam na ko loolu hypocrisie la munoo ne gànn day fen yow bind yi nga teg ci sa bët nga naan bind yaa ngi nii nga ne kay wax lii ngi ki liir xam ko ne kay wax lii da kooku alxuraan ak sunna la toppoon waaye nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw di nettali ñoom ñoo nekk avance te moom mu nekk ci bind te ñu koy fekk ci téere yi nga xam ne moom lañ koy askanale loolu tamit beneen problème la yaa am na beneen problème la boo xam ne moom mooy judd ñun nag dañuy wax dëgg te yàlla tax ku ñu si mere mere ñu kuy kontaan kontaan waaw ñun yàlla la ñu xool waaw nekko fi di wax pour apparaître neexal benn nit wala am ñoo xam ne dañuy wax loo xam ne day neex benn nit pour am ci ay soppe ñun newuñu ci logique boobu mere ñu ak bëgg ñu déglu ñu ak ñàkk déglu la ñuy jamale wallaay ndax kenn la ñuy rendre compte muy borom bi subhaanahu wa taala mbokk tey boo leen gisee tey dafa am benn système bu ñu jël mooy da ngay wax parce que boo waxee am na benn mbooloo booy sóoraale léeg boo waxee am na nooy waxee cheikh diw mun na la mere wala boo waxee bu am na nooy waxee ñu bëgg cheikh diw mun na la mere wala mun nañ la bañ a partager na ñu dañu xool logique yooyu quoi xam nga nag newuma ci logique kumay bëgg da may bëgg fekk li may wax dëgg la kumay bañ da may bañ te fekk li may wax du dëgg nga bañ ma ci lool mais quand nga bañ ma parce que li ma wax dama japp ni li ma wax ni lool na lool moom moy logique kooku sa problème lay doon man lool aw ci aw ci ben ki dëgg bu wër comme léegi damay. taalibe yi ma dugal gaay ha gars doole rek talibé lu tax lu tax ñoom comme ça tay ji tay duñu yewu xamna ñom seeni borom xam-xam lañuy invité télé yi. Mhm. ñuy leeral mbind yi ci lu leer nañ te buñ leen invité ci télé yi ñu koy leeral ñoom duñ ci de dañ ci mhm. kontaan mais ku mel ne Cheikh Alpha tey bu taxawee di ko leeral wala keneen tey jii tey ñoom dañ ciy mer parce que mhm. dañ naan tax buy saaga suñu sëriñ fekk saagul seen sëriñ dafay leeral li nekk ci téere bi waaw parce que yokku ci wàññiwu ci balaa muy ñëw di leeral da leen indil seen borom xam-xam ñu toog wax li ñuy wax ba pare kon nag bul jam seen borom xam-xam jamal ki nga xam ne si ñi tey moo bind téere bi te waaye ñoom si ñoom da gis ñu naan la téere bi da koo bind waaye dañ koy jàng waaye dañ koy jàng parce que dañ koy jàng waaye waxul ñu firi ñu ko loolu mooy lan wala tey jii tey ñu taxaw naan la téere bi yéen fi muy waxee comprendre leen ko yàlla ji dañ koy firi ñoom dañ koy firi mm-hmm. xadiis Muhammad sallallahu alayhi wasallam dañ koy firi te dañ koo dégg Mm-hmm. waaw léegi léegi sëriñ bi nga xam ne si ni nag moom dafa ñëw nekkul yeneen nekkul dara bind ay bindam pourquoi pas duñ ko firi comprendre lu mu bind waaw mm-hmm. ah, bu fekkee dafa bind tawxiid bind leneen ñu ne sëriñ bi bind na tawxiid ci téere nang nangam nangam nangam mm-hmm. léegi dem leen xooli ko ah léegi sëriñ bi bu bindee ay juumte quoi ñu ne yéen comprendre leen fu muy waxee quoi non asalaamaaleykum ya aqi waaleykum salaam wa bisimilah euh, euh, ñu ngi lay siyaar baax ba lépp jàmm. ñu ngi delloo ziar. fan yii nag maa ngi dugg sax nga boole kaw mais fekk man lu baax rek laay wax ndax yàlla daa dogal ñu ku yonent bi sallallahu alayhi euh, yàlla yonent bi mm-hmm. la ñëpp ci leen tënku mm-hmm. mag ñu baax ñi tamit ñëpp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leen tënku mm-hmm. te diine atu islam moom boo ko tijjee rek pour man ñun ñëpp ci leen bokk daal mm-hmm. euh, man nag man nag li ma defarlu ci moo xam ñun ñi nga xam ne ay moto sayfon ak yéen ñëpp li ma defarlu daal mooy saaga yi laa du rafetlu moom loolu moom dama koy bañ fépp ndax ay nit mën naan waxtaan mm-hmm. ba gindagonte ndax ñun ñëpp ay julit lan te kenn lan sopp yonte bi ndax fi toll koo man di andit ci yonte bi lay teere mm-hmm. te yonte bi moom moo moo ginnaaw yàlla yonte bi la wax ak rafetal sunday sunu ñaar waajur Euh, mhm. sëriñ bi doog a ñëw waaw. xëy nag léeg-léegi nag pas-pas moom day am wuuteeg. Ah, eh, yàlla ku mel ne man nday ak baay la wax nday ak baay la wax. te ah, xëy na waxee ginnaaw nday ak baay oh, xam nga euh, man dama dugg pour am lu may du ma dugg ndax su ma duggee day mel ne. Ah. werante day am. lima li ma tax a dugg macha allah man dangay yow yow yow sama sama. yàlla dafa ne yàlla topp ci yonente bi topp sa ñaari waajur topp ci say sëriñ. ma laaj la ma ne la ndax am fu mu ko wax quoi. waaw bi ndey bàyyi la la suñu borom wax mais xëy na wàcc la tamit. Euh, kenn ku nekk ak euh, am nga droit yaakaar parce que man mii wax ak yow sëñ Tuubaa laa yaakaar en même temps mi surtout mais côté boobu mhm. taxumaa dugg li ma bëgg mooy sa mhm. côté ak ba mhm. ci ñun dama bëgg ñu arrêté li nga xam ne mooy ay saaga ndax ñun ay jullit lan te dafa am ñoo xam ne dañoo buñ ko bokk ñoom réew mi te bokk ñoom ñoom euh, ñu nekk ci benn wàll te ñëkk ñu ay jullit man côté boobu moo tax boobu ba léegi man naan une semaine ngi maa ngi baa ngi bëgg a pour di ko dénk sama bopp di ko dénk ñun salaamaaleykum sama bopp sa Alpha Youssoufa yéen ñëpp seen saabonda yéen da ngeen di Regardez waa ji day koo gis mu def photo waaw sëñ saa saaga waaw saaga yooyu sax saaga yooyu sax bëgg Cheikhul Khadim mhm. saaga yooyu sax Ahmad ah, Cheikh bi ah, Cheikh Ahmad micro ma wala waaw ah? mën naa tëj koo gis koo gis ñoom mu def photo bii nii photo islam bii nii xamal na ñoom mhm. dañoo def coalition pour saaga dañuy def seen direct ñoom ñëpp saaga quoi bu leen dugal. ok ok waaye loolu mooy seen métier mais ñun ñëwuñ fi mm. pour saaga ñëwuñu fi pour wax dara ku dugg di saaga affaire yi noonu dañ lay wàccee. bismillah mm. Cheikh Ahmad maa ngi jégalu. ah maa ngi tuub sax man li tax ma gën a dugg euh, sang bi. Mm. ñun dañoo bokk. sallallahu alayhi wa sallam tey te duñ ko séddoo. ndax amuñu ku dul rasulillahi. xëy nag pas-pas. yàgg de jëm ba ci jamono yonent bi am na ñoo xam ne yonent bi ñëpp ko am na ci ay bàyyi taxam yu ko nangul hmm. yàlla xay na moo na moom moo séddale loolu àdduna mais man li hmm. may dàq hmm. waa ji wàcc sànq sax mu ko ko bëggoon a wax wax ko sam boobu wax ko geen mooy ay saaga defarul am réew te saaga yooyu da tax ñu dun gën a dunte parce que sa sa yow mii pas-pas bi nga amee man leer na ma kenn du la ci jëlee man mi tamit pas-pas bii ma amee gëm mhm. sëñ Tuubaa yaakaar kenn ma ci mais saaga yi mu rafetul en tant que ñoom jullit yaa ngi saagante mhm. loolu damay toog mu naqari ma lool te ñu ñëpp ay la loolu rek moom métti koy lu ci kiin maa ngi koy jégalu xëy na loolu laa jégalu maa ngi tuub bu baax sa xalaat itam bi ah sa xalaat itam bi waaw thème bi nag xaw ma xaw na ma rëcc la parce que léegi laa dugg rek gis la waaw sëriñ bi dafa wax ne yàlla lu muy def da koy tàggu waaw xam nga Serigne Touba. ñun hmm. euh, ñi nga xam ne dañoo jàng di liir. Hmm. Euh, nekk lu nu liir te danoo jékki-jékki xalaat ko liir ko danoo fekk xëy di ci bëyitam liir ko. Hmm. xëy na moom tamit fa mu toll ci yàlla ak lam jëfal yàlla. moom moo ko xam. man li ma xam ci loolu mooy li ma xam man. wax gi may wax ak yow ak reer bi ma tiim reer ko. foofu foofu foofu laa xam tey foofu laa toll tey mais nag nit ki du ma mhm. dàqal kenn la Abdou Wahab wax du ma ko ko daqal mhm. du ma wax euh, Zafi wala Mouhamadou Anban wala Serigne Touba ku ndax kenn ku nekk la nga toll ci mhm. yàlla ba wax la nga wax xëy na yow yaa ko xam ne tax wax nga la nga wax moo tax tey am yu bëri man dama cay maandu tey ji ah, boo ñëw ne ma ah Abu moo wax nangam moo wax nangam donte bu ma d'accord it dama cay maandu parce que maa am sama maa am sama maandu dafa bokk tamit aussi ci ponk jaamu yàlla wala déet. maandu ci ponk jaamu yàlla la bokk maanaam yow noo firee waaw maanaam xam nga tey jii nit ki lépp loo xam ne xamu ko rek pour man da caa war a mm-hmm. noppi. waaw si yéen def salaas ko yónnee sama xam-xam yéen def salaas ko yéen def salaas bañ dafa fekk waa Màkk am seeni sëriñ seeni yàlla de di leen jaamu mais ba mu ñëwee dafa maanduwul ci ñoom dafa tudd seeni tur afara'aytumu laata wal uzza bi laa bis nii xam nga kooku dafa am ndigal ñu yónni ko ci xeet mm-hmm. nekkul moom moo sàkkul boppam ne wàcce ma mm-hmm. daaru mm-hmm. dunya boole ma ci gir bànni asim pour ma def jindi leen waaw yow tamit yow moo jël mission pour yónni ko yow yow ak am nañ ndigal ci digle lu baax tere lu bon ñu gis ni lii baaxul ñu ñu ko am nañ ci ndigal yàlla moo ñu ne kuntum xam nga xam nga tey jii loolu moo war a parce que bu fekkoon tey jii gisuma nga wax yonent bi wala waxoo uh-huh. alxuraan uh-huh. du mosu dugg sa laay mais xam naa ne jullit nga te parce que uh-huh. génnoo ci li nga wax te mu ngi ci sariya te ne dama lay nangul sa jullit léegi gëm nga ni ay fecc yàlla dafa ne na ci ay wala ay fo wala ay taxawaalu yooyu du ma ci dugg léegi Cheikh Ahmad xam naa man dama lay respecté bu baax parce que daga dugg ak respect di waxee ak dal macha allah barakallahu fiik mais léegi doo dégg du kàddu gu ñaaw doo dégg ci man dama bëgg rek ñu kii xam nga yàlla dafa ne fa man yàq <laughs> baatu laa ilaaha illallah xam nga lan la saxal la ak weddi ma day weddi lépp lu wutal alxuraan gëm alxuraan gëm nga ni ndax gëm nga ni ka wax ni yàlla buy def dara dafa may tàggoo wax jooju wax ju baax la ju dëppoo ak alxuraan sunna waaw xam nga tey euh, yaakaar naa bu dee euh, xëy na ci côté làkkat mais bu dee olof la olof day kàll mhm. day kàll te xam ne tax xam ne euh, am na loo xam ne tolluwaay la mais dégg-dégg dafa xaw am wutaat ndax dégg lu mu la waxoon boo xoo ci tëri na ngay dégg mu delluwaat ne Abdullahi waxaat waxaat yi mu rasul dana ab jaamu yàlla la ab mbindaat la kan lay mbindaat rasul lay kan kooku yaakaar naa jëlu alkibru di ko teg ci kawam wala muy jël jëmmam di ko teg place yàlla yàlla moom nguuram dafa wéet alkamalullahi moom rek ay yàlla yàlla dogal it moo yor dogal keneen yoru ko ku dul moom yàlla léegi yonente bi sallallahu alayhi wasallam koy beru yonente bi sallallahu alayhi wasallam it donte yeneen yonente am na mais dafa beru moom ci am ndax na koy la ko yàlla joxe cëram jox ko mhm. benn yonente benn yonente sallallahu beneen yonente bu dul moom moom Mustafa sallallahu alayhi wasallam ok léegi est ce que mën nga ma dellu Cheikh Ahmad ma tagal la vidéo ñaari vidéo gànna vidéo boo xam ma matul sax deux minutes mais nga ma la waaw ba tey man de damaa dugal sax di kii rek daanaka saaga yooyu laa doon gis waaye damay bañ xam nga sama waay nga ñu dugg ci kii am ñu am am ay werante wala am ñu gisante te wallaay asim te loolu laay bañ quoi rafet ak rafetal rek tax ma dugg ak rafetal rek wa bi sarafil xuraan waaw waaw saaga ji dañoo def ba a toog parce que ay bëgg di ñaari ñooy rafetal rek di ci ci ci kii bi ci bàyyiloo xel bi nga bàyyiloo xel nit ñi léegi dama bëgg rek

يقول لي ولا يقود مني إلا لمن شئت باسم مني يقود لي ولا يقود مني إلا لمن شئت باسم مني yàlla di ma jox sama laaj gën a ci man dara tàggu ma Cheikh Ibrahima Diop ne wa min maalikil mulki mulkul xawa ci nguurug yàlla gën a làmboo nguur fa mu ko xubi de sàmm dañ laa yëngu nguur suñ tubaab di njëkk tëpp ci digg bi jëlal ma jël lii te loolu nekk sa lenn waaw comme comme foofu. ma ne gànn tamit xam nga tey waxul waxu boppam waxu sëñ Touba la wax. waxul waxu boppam de waxu sëriñ bi la wax. sëñ Touba lam bind la la nettali. waxaat tamit. waaw malakani dunya waxuraa sama sëñ Touba ko wax. moo waxaat ne. si maamu wara asri la de lay fi yeddi. sëñ Touba ko wax. مو خاتم رسول الله إنكم محمد عبد المختار سيدنا وب المحاني وأهلي وولدا وخر قدمي وأهلي وأولادي في الدهل وأبد القديم لو مسكاني سندا وعليك دبر وفوف شي عمل ليل ورجي موي yow gëm nga ni yàlla dafa xaaj nguuram jox ko sëñ Tuubaa non loolu dégg-dégg la mais suñ borom nee naa mën nga wax dégg-dégg mën nga wax dégg-dégg la ban waa dégg-dégg xam nga doomu aadama euh, hmm. doom góor yàlla hmm. dafa am fu muy fu muy àgg ci suñu borom hmm. loolu du mbirum loo xam ne ci ci ay lu ñuy bind la mbirum yëg-yëg la léegi am yëg-yëg moom amaan mu ngi mel ne tey ji yonent bi ak sëriñ kan moo gën a àgg ci yàlla non sëriñ Tuubaa mbindaanu yonent bi la xam nga mbindaan moom yaakaar na moo gën a suufe lépp comme yonent bi moo gën a àgg non bi kenn la. est que yonent bi yàlla xañ na nguuram bu mës na wax ne yàlla xañ na sama nguur jox na. waaw mosu ko wax nag mais moom mi ko waxit euh, xam nga d'accord naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam hmm. moom Serigne Touba tegu tegu ko mbagg. bañ na ba naan ko xaadim bi ab Abdullahi wa xaadimu rasul ab jaam laa waaye mbindal laa kan laay mbindal rasul laay kan kooku xam nga. non non damaa bi foofu non damaa bi dara yonent bi sallallahu alayhi wasallam. nan la la ko fi nga ñëw dama lay tontu damay ñëw damay ñëw. waaw ba ma ah. mayee quoi ma ñëw. Mhm. parce que bëgguma leen loo xam ne dama fiy dugg ci tur rafet rafet mooy am mooy am ba faaw barke sew wallahi mooy am ba mooy xam nga ki ne la ku ne la xadim la am mbindaan la kan laay mbindaan rasulay kan kooku am mbindaan ci kër xëccu wala patron dara waa léegi comme d' accord naa comme d' accord patron patron mooy rasul mooy rasulillahi waaw d' accord naa ne yonente bi moo gën sëriñ bi léegi yonente bi moom bu fekkee moom moo gën sëriñ bi sëriñ bi moom yàlla xaaj na nguuram jox ko est ce que sëriñ bi gënal demul ba gën yonente bi sëriñ bi sëriñ bi bu gënoon bu gënoon yónent bi du nangu doon am bi daal eh. xam nga loo xam ne da may dégg yow it eh, eh, alpha uh-huh. ab jaayil te xam yaa muallim nga dafa am loo xam ne yónent bi mm-hmm. mm-hmm. ak sëriñ Tuubaa ak lu mu àgg ag àgg ak ci yàlla tamit ab moom mm-hmm. mënta nekk lu lu dul mbindaan rasulillahi wax na la ko wax na la ko waaw man d'accord naa ak yow musta dendal musta dendale boppam ak rasulullah léegi sëriñ xam nga problème bi d'accord naa yow gëm nga ni yónent bi moo gën te nee nga sëriñ bi nee na yonente bi moo ko gën mais problème bi mooy sëriñ bi bu nee yàlla xaañ ma nguuram jox ko yàlla lépp lu muy def tàgg ko comme sëriñ bi léegi ëpp na grade yonente bi sallallahu alayhi wasallam mais loolu cheikh bi mais loolu tey jii tey waaw mais bu fekkee ne moom nanguwul lool laaj ko léegi bu fekkee ne sëriñ bi dafa wax ne yàlla dafa xaaj nguuram jox ko yalla tay jité lepp lu muy def yalla da koy tàgg légui ñun fa lañuy ñuy en tant que julit ci alcorane wala ci sunna kan lañuy ñuy ñun ci alcorane lañuy ñuy dellu ok léegi bu féké fofu lañuy ñuy légui nañu indi preuve fofu ra non rek mm-hmm. légui non xam nga newma la euh, ci arfaat mo mo ñu teunk ak resu ak yonent bi mais tay ji mm-hmm. xam nga dafa am lo xone alpha mm-hmm. da am leneen lu ñu teunk ci deglu gatt moy li fofu bo mbay rek ma leral xam nga tay ji fi tol li alpha li mi laaj di ma ko laaj serigne touba nekatul dar dunya serigne touba rek nga mëna fekk laaj ko ne ko li nga wax lutax nga wax ko parce que moom ah non ñun mun am nañ ci alxuraan luy weddi waxam am nañ ci alxuraan luy weddi déedéet déedéet xam nga non xam problème mooy alpha mm, mm. yow bind sa tëju sa néeg bind wax nangam mm. doonte la moo xam nga juum ci wala nga teg ko ci yoon ku ko bëgg a siise war ku du nax boppam parce que yow yaa xam nga ci jublu alpha ba tax nga bind bi léegi boo waxee toll ok léegi waa léegi Cheikh waaw. ok euh, léegi Aïda Diallo du xam nga ko. xam naa ko xam naa dama bëgg a maandu ginnaaw moom néew fii. te toog ah. maa ngi moom it wax dëgg yàlla dama caa bëgg a maandu boobu. doo doo xaaral doo muy lu lu lu ñuy wax ci TikTok rek loolu nekkatul jëm lu ñuy wax ci écran ñëpp di ko dégg. lii moom trois cent trois cent trente trois cent. trente mille nekkatul jëm nekkatul loo xam ne suñuy tey privé la quoi. voilà léegi benn benn question la am comme que nee nga léegi nit ki léegi am na fu muy toll ci tolluwaay rek moom moo yàlla ñoo ko xam mun na wax loolu léegi Aida Diallo nekk bu nekk sëriñ bi accepté di jiite ay nit ay góor. noo man man d' accord ma mais du ko hmm. weddil mais d' accord ma. mais doo ko weddil mais d' accord ma non du ko weddil mais d' accord ma parce que jigéen yonent bi sallallahu alayhi wa euh, ak mag ñu baax ñu bëri dañu bind ne kàddoom sax. la tax jigéen buy julli di yelu kaddu mhm. war a jëm ci kaw kan kaddu kan jigéen am na yoo xam ne mhm. donte moo mun yunti waxoon na ne alnisaawul kan ji mais nag warta jiite warta doon ilimaan warta doon koo xam ne kuy mhm. euh, kuy kuy nodd la wala muy julli di ko biral da waaw doo ko war a yow yow léegi am nga contradiction parce que da ko kii loolu ñaari ko dàq xëy na non du ko dàqal xam nga du ko dàqal ah. moom moo xam fa mu toll ba tax mu woote loolu xam nga kon la ma parce que loolu walaaw axlamu mais nag ci ci côté tamit d'accord ma ci côté sariya mais la ca des nag moom moom la moom la concerné parce que foofu dama fa cee maandu ndax ku nekk am nga droit def la neex comme comme est-ce que am comme comme est-ce que am kuy defati lu bon fekkee ku nekk lu mu def da koo concerné est-ce que am kuy defati lu bon comme franc-maçon bi di woote ci déggoo ma de franc-maçon bi di woote ci jaamu déggoo fi ma de xam nga tax déggoo fi ma de néew ma dama ko woo dama ko woo pour mu Aïda Diallo ñëw ci lu bon déedéet. yow sa logique bi ku nekk lu mu def xëy na moom am na mu def ko wala da ngay mu def ko léegi franc-maçon bi di woote ci jaamu seetaane est-ce que du ñu moom it sa logique bi du ñëw ci moom. xam nga kenn ku nekk tamit euh, xam nga imaan imaan mm, mm. ci xal bu lay nekk ji nga sa mm. xol bi alpha la ca nekk yow yow la concerné pour nga pas ko man mii li ne sama biir xol tamit man la kii bàyyi li am solo nag mooy. li xol bi kii ñun am nañ fu nu tënku mais keneen nag tamit fu nga tënku nag. su ma la fa mënoon a woo nga wuy si ma ginnaaw mënu ma ko tamit ci man. li ma li nga xam ne moom a gënal. mooy su ma ci mënee maan maandu ca. su ma mënoon a woo léegi la moo tax yow tamit kaay wuy si ma. léegi la moo tax yow tamit xeex ak inna diina inna allahi lislaamu waaw. damay d'accord léegi xam nga siiti yoo xam nga siiti. siiti xam nga rek. waa suuti rek waa alul bayt wax dëgg yàlla mënu ma leen xaw ma leen waaw ñoom ñoom ay jullit la ñu woon ay julit mais dañoo wax ne ali yàlla la ali lakk leen yëfarloo leen lakk leen la ma doon yëfarloo leen parce que dañ ne ali yàlla